Dita eh, <laughs> Ba ah, mau comme baam Amadou Wuri Pita Pita la jóge ah, Amadou ah, Wuri Pita Ba te ñu mu nekk premier ministre Sénégal te mu juddoo te parents mi jóge Guinée te ñu bëgg ko dénk suñu réew xam nga lu kooku tamit dinañ ko invalider te combat yi jeexagul de affaire sax dinañ bokk ci combat Udah pour défendre démocratie bi donc combat bi jeexagul parce que cour constitutionnelle dafa war wax war a wax en faveur de la vérité parce que bu waxee dëgg-dëgg Amadou Wuri Pita Ba boobu noonu du nekk président bu waxee dëgg-dëgg Ousmane Sonko dina nekk président bu waxee ci dëgg-dëgg-dëgg ñëpp dinañ bokk ñoo xamante ne ay sénégalais lañ Karim Wade dinañ ko rétablir ci ay droit mu bokk man je suis pour que Karim Wade mën a participer que ñëpp mën a participer mais kenn moo amul droit participer ku jeexal ay cartouches nañu abal te bu paree sax ci nguur gi suñu ko xam. Euh, pareeguñ si révélation yi révélation yi non yeneen a ngi ñëw ah. yeneen ngi ñëw <laughs> ñëpp na ñëpp toog di déglu rek ah. doole gi nga xamante ni ah. moom laa gën a am tey incha allahu rabbi dina leen weex xat waaw parce que yaakaar nañ ni dinañ ma toroxal je me suis relevé plus fort et cette force là incha allah yàlla ji moom moo koy contrôler du benn doomu aadama voilà am nañu